dëgg la mooy defar usine euh, yi nga xam ne mooy defar euh, mbalitu mbalit yi moo koy traité fexe ba nit ñi di gën a set di gën a organiser koñ yi di bale di di defar waaye fexe tamit bésu diine yi nga xam ne nit ñi dañ ci daje mbooloo di ci ñëw te ñu ci defar mbalit yu bëri it ñu mën a fexe euh, toppatoo leen andi leen li ci war looloo waral tey. biñ fi dikkee andi nañ juróom fukki bac à ordure maanaam ay pëlu mbalit def ko ci jumaa ji ngir këyit yeeg euh, mbuus yeeg yooyu ñu daan sànni mu koy wër leneen li mooy juróom fukki yeneen muy téeméer yoo xamante ne def nañ ko ci vingt-huit nga xam ne fépp foo romb rek am na fuñ ko teg laaj nga ma léegi ne ma ndax Touba bu weesoo lii dinañ ko toppatoo mais la balaa lii sax ñu ngi toppatoo Touba ndax Touba am na dispositif boo xam ne tey euh, dañ fiy collecté déchets tey jii fii ñu taxaw nii rek bés bu ne oto mbalit na fi romb jël si mbalit léegi nag war nañ ko gën a yokk fexe ba gox goxaan yëpp bu ci ne am ci euh, système am am euh, am am ay bac à ordure am ak yooyu nit ñi tamit ñuy waxtaan ak ñoom mën leen a yee ba ñu xam wax dëgg yàlla ci wàllu mbalit ak yooyu lan moo ci war dispositif yeeg organisation ba ñu agsi leneen li nga xam ne tamit président de la république andi na ko mooy dëkku diine yi muy Touba di Tiwaawoon di Kaolack ñoom ñoo njëkk am li nga xam ne moom la ñuy wax CIVD te boobu Dakar amu ko euh, Ziguinchor amu ko saint amu ko loolu day wane rek fonk bi mu fonk Euh, dëkku diine yi euh, donc defal nañ leen CIVD mooy centre intégré de valorisation des déchets boo demee Dakar am nañ suñu mbëbës boo demee Mbour am nañ Gandigal boo demee Ziguinchor am nañ Mamatoro boo demee euh, Ndar am nañ seen gàndoo mais Touba nag teel nañoo fexe tey ba ñu am usine bi nga xam ne mooy defa déchets yi di ngeen gis image yi léegi usine yooyu nag nga xam ne léegi bu fa yóbbee déchets fa lañ koy tonnee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 هماني هلا ماهن ما الأبس والسفر سلام